barkeb Cheikh Massamba yaa umma ruuhil maaliki yaa umma jaayina liiki ibnu uki laa bi maaliki hindala li mu masigi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalu Cheikh Mahamadul Muntaqa xalif général kulu murit yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ci kilifteefu sëriñ Mamor Anta Sali Mbakke xalifatu Cheikh Massamba sëriñ Abdul Xabir Mbakke moom sëriñ sàmba jëwriñu sëriñ Mamor Anta Sali moom sëriñ Massamba noo ngi woo mbooleem mbokki jullit yëpp ak mbokki talibe yëpp dalee ko ci sëriñ Modou May moom ma sàmba ba ci sëriñ Abdul Xabir moom Cheikh Massamba waaye dalee ko ci. soxna Daba Mbakke moom soxna Mbeen moom Serigne Massamba ba ci soxna maam isa Mbakke moom Serigne Massamba mbokk yi bu ngeen gisee jotaay bii ngeen xam ne ñoo ngi dëgmal xeexoo bu mag di xeexoowu lislaam di màggalu daarul karim ñu fas koo yéene amal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Chaabaan di weeru baraxlu yem ak fanweeri fan ak benn ci weeru mars ci atum 2022 ñu ko amee nag fii ci dëkkam bu sell bii nga xam ne mi ngi ko fi mi ngi ko taxawalee ci ndégalu Serigne Touba di Daarul Karim mbokk yi nag ngir waaja nag woote boobu nag ñoo ngi koy amale ci teewaayu jëwriñam ak mboolem njaboot gi ñu fas yéene nag jébbal kaddu gi Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mahamadou mu fas yéene nag dikk ak ñun ci woote wii nga xam ne moom la ñu dëgmal su noppee dinañ jébbal kaddu gi moo Maodo may Mbacke moom Serigne Abdou Salaam mu nag ñëw ci programme màggal gi ci turu commission culturelle bi ci li nga xam ne moom mooy programme wàccaay bi jataay toog li ko waral mooy bëgg yëgal leen bis boo xam ne bisu Seex Masàmba la xëy na leen ko fàttali rek moo ciy am at mu bu ñu demee ba agsi ci kasu Saabaan muy ñaar mois de Saabaan mooy bis bi nga xam ne ci la Seex Masàmba gane woon àdduna ñu de ko ko màggal ni ñu koy defee ci bërëb yu bari ak ci kilifa yu bari kon loolu moo waral jataay bii ñu toog ñu bëgg nag mboolem bokk yi li ko tàmbalee ci sëriñ Mor Jaara ba ca Seex Masàmba mii ñuy wax tey kenn ku nekk xam ne am nga cër ci bis bii doon doon doon nga ci dara itam ñu di la ca woo ca woo njaboot gi ni ñu ko baaxoo defee ni ñu defee bu dara xewee njaboot gépp daje fa ñu fa ñu ñaan itam bés bii bokk yëpp daje fi di njaboot sëñ tubaa gi fi nekk njaboot sëñ tubaa gi fi nekk di ko tàmbalee ci ñoom ci sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Mourtada ñu ngi woo njaboot googu gépp bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo itam mboolem seex yi seexi sëriñ Tuubaa yi di woo mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci sëriñ Tuubaa ak fuñ fi mën a nekk di woo bokki diine yi nga xam ne ñoo aju ci këri diine yi bàyyiwuñ ci kenn mi ngi woo itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci administration bi bàyyiwuñ ci kenn président de la république yëgalees na ko ko ñu ngi koy ñaan mu taxaw ci taxawaay yam ci war a taxaw ak lam ci daa def mu def ko ci mooy jox ndigal ñëpp ñu dox niñ ci war a doxee jàpp ci niñ ci war a jàppee fa tabarakallahu te jàpp nañ na dana ko def incha allah kii màggi taalibe yi ñu ngi leen di woo muy ku mel ne sëñ Madické Niang ñu xam ko lool ci kër gi ak ku mel ne sëñ Mbaye Sarr Sénégal Tour Mouhamadou Bara Diagne moom sëriñ Mamor ma sàmba ak sëriñ Makki yu fay moom itam nga xam ne jàpp na ci liggéey bi bu baax a baax fa tabarakallahu ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp ci bés bi di wax itam daara yi nga xam ne fa la ñuy jànge alquran ci biir tuubaa daara yëpp mu ngi sàkku ci ñoom ñu jàng ay kaamir alquran yu bari te yéene ko Seex sàmba yoon wi ci yëm fi neex neexewul noonu ndax yoon wu jóge ci hôpital bi la ñëw ba fii bu nu sañoon day jàll ba ca yoonu aliewa bu jàppaloo ak moom beneen bi ci des yoon boo xam ne day jóge ci pénc mi dem ci penc mi nga xam ne mooy pencu kër sëñ Modou Faty Khary lanu gën a bëgg nag mooy yoon wu jàll noona ba dem dogge ko rooba kon loolu mooy bëgg-bëggu sëriñ bi leneen li ci des nag mooy liggéeyu jumaa ji ngeen jàkkaar lool fa tabarakallahu ñu ngi ci di ci yëngutu du jumaa ju ndaw ju mag la liggéey bi koy defit yombul waaye teewul nag yéen ñu ngi ciy jàpp-jàpp wu ci war moom mi ngi ciy jàpp njaboot gaa ngi ciy jàpp mi ngi dox ni mu war dara taxawul kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax koo xam ne ki taalibe nga itam mi ngi lay woo nga ñëw jàpp ci liggéey boobu te nekk ci ren ñu tànn benn thème boo xam ne dafay waxtaan ci ñu tënke ko qiimatul euh, mashruuaat fi tariqati al muridiya diiniyan wa ijtimaayan mooy lan mooy projet yi nga xam ne moom la yoon wi am yoonu murit taxawal ko ci at yi ñu weesu ñëpp gis teg seen bët nan la ci diine jariñoo waaye nan la ci société bi jariñoo loolu la ciy firnde rek mooy daara jure ji nga xam ne Cheikh Mahamadul Muntaxa daf ko taxawal yàlla na àgg ak jàmm te ànd ko ak moom doomi jullit yi war cee jariñu rawatina doomi taalibe kon ñu tàmm thème boobu thème boobu ki ñu koy waxtaanal mooy docteur Khadim Sylla ku ne xam na ko ci xam-xamam ak gëstum ci yoon murit mm-hmm. moo ko war a def ñu ngi ko war a def le 29 mars di talaata mooy thème mooy waxtaan bi ànd kooki boroomi xam-xam incha allahu taala kon loolu mooy wàllu thème bi mm-hmm. ci loolu ñu ngi ci woo mbooleem ahfaad xaadimu rasul di nekk ci ci dëkk bi bàyyiwuñu kenn mm-hmm. ahfaad yi nag bari nañ yaatu nañ waaye li dala sëñ Mor Anta Sali ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi ci woo ñëpp ñu teewe ji waxtaan bi mm-hmm. ba tey ku ne bisu sëñ ma sàmba danga wax alquranul karim mm-hmm. ku ko sàlloo woon la ku ko daan liggéeyal la ba tax ñu ngi woole mboolem daaray alquran karim bi ci njiital sëriñ bas mu sëriñ Habib mm-hmm. ak rabitatul madaris alquraniya ci njiital sëriñ Xaadi Jaxate ak mboolem daaray kaamil yi nekk ci biir Touba ba ca njaareem lu waay mën a jàng ci alquranul karim mm-hmm. na ko jàng jël yool bi yéene ko sëriñ Masamba Mbàkke mm-hmm. ci loolu ñu ngi ci woo mboolem ahlul qasida bàyyiwuñu kenn suñu waxee ahlul qasida nag ñi ko mooy sëriñ Hamzatu mu sëriñ Shuayb ñëpp xam nañ ko ci wàllu googu ñu ngi ko ciy woo ak ñu ngi leen di woo tam xisbu tarqiya xisbu tarqiya tam ci njiitu sëriñ Yuusuf moom it ñu ngi koy woo ci bis bi ba tey ñu ngi ci woo mafatixul bichri ak taysirul asir ak ahlul minan yi nga xam ne ti moom it dafa aju lépp ci kuréelu ahlul xasida ñoom it ñu ngi leen ci woo ci turu sëriñ Moustapha mu sëriñ Mahmoudan waaye nag loolu lépp ki ko coiffé mooy fédération bi nga xam ne mooy fédération sëriñ ma Massamba bi nga xam ne moo ne ci biir kër gi ñoom bis bi seen bis la kon nag bis baa ngi noonu nan ko waajal ci lépp xam ne bisu borom ngërëm moom luñ ci deful tam yàlla ki mu gërëm kooku bisam suñ boroom mooy taxaw bis bi kon nag li ci li ñu war rek mooy takk suñu laxasaay lépp luy jagal bis bi rek suba ngoon ñu ci xëy di ci gont jërë ngeen jëf mbokk yi woote baa ngi noonu muy màggalug daarul karim ñu fas ko yéene amal alxames ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru Shahbaan yam fan fanweeri fan ak benn ci weeru mars ci atum 2022 fii ci Daaru Karim sëriñ bi nee na moo ngi ci woo bokk yëpp di ci woo njabootu sëñ Mamor Jaara Baram Saam ba ci sëriñ Cheikh Absatu muy mbooleem njabootu sëñ Mamor Anta Sali waaye tam noonu la ci wooyee njabootu sëriñ Touba gépp dale ko sëñ Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada waaye tam di ci woo Cheikh yoon wi yëpp Cheikh yoonu murid wépp nga xam ne bu ñu ci tuddee maam mu yóbbaale mboolem seex yi waaye sëriñ bi nee na it moo ngi ci woo mboolem këru diine yi ak fuñ mën a nekk ci biir réew mi ndax bisub sëriñ Massamba bisub lislaam la nee na noonu it lañ ci woo mboolem waa axlu xasida ni ko sëriñ bi waxee léegi ci biir waa axlu xasida ñoo ngi ci woo waa diwaanu xasida di ci woo tamit waa Nooru Absaar bu Kër Ñang nee na ku wax sëñ Massamba xam ne xasida mooy ab cëram moo tax sëriñ bi nee ñoo ngi ci woo mboolem waa axlu xasida ñu ci tudd Serigne Amsatu moom Serigne Chouaïbou bu tamit di ci woo waa Isbu Tarqiya ak mboolem ku yëngu ci xasida ndax Serigne bi dafa bëgg li tàmbali tey jii képp ku dégg kàddoom fu waaye mën a nekk te yaakaar Serigne Touba ñu tàmbali njàngum alquran mi ak njàngum xasida mi kon mbokk yi ñu leen fàttali ne conférence bi ñu ngi koy fas yéene amal talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wii parrain bi nag ren jii ñu dara jaale ko Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ibnu Khadim Rasoul radiyallahu anhuma kon sëriñ bi nee na moo ngi koy fàttali sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñam ak mboolem njaboot gi yëpp nee na mi ngi ci woo euh, président conseil régional di sëriñ fallu Mbacké nee na moom ñu ngi koy woo ci bis bi waaye tamit di ci woo maire bu Touba di sëñ Abdoulahar Ka ak mboolem waa maire bi yëpp maire bu Mbacké di monsieur Gallo Ba nee na mi ngi leen woo ci bis boobee di leen xamal it waa Mawahibul Khadim bi nga xam ne dafa aju ci njaboot gi di benn ci commission culturelle bi ñoom it incha allahu taala fas yéene génne benn magazine boo xam ne dafay wëy ak yaatal ñàngaleem Cheikh Massamba waaye tamit des na fi amal tamit consultation gratuite kon mbokk yi ñu ngi sàkku ñëpp bis bi ñu àgg ci ak jàmm te daje ceeg tawféex ak ak ngërëmat sëriñ bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa umma rohil maliki yaa umma jaayina ligi ibnu ki la bi alege hindala ali mumasige